asalaamu aleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Ndiaye. Ndiaye. ça va. yàlla tabaski. nice. <laughs> non attends. nice wala non nice. ah nice tey tey moom non nice. c'est la première fois Ndiaye ne non nice. ah, ah, ah Mantoulaye doom nice. ah man de fa ma ne woon rek bàyyi. donc non nice Lamine Gueye la tabaski nice non nice Chimère nice. mais. <laughs> yee xam na ñëpp taal. Babou xoolal amul ku naan la nice. eh mais lii mbote la. mais amul ku naan la nice. mais ma xool sa xar mi nga indi ci studio bi. mais <laughs> mbéegee ko suufee. <laughs> non mais lii bu kawe laa bëgg ma. mais eh yow lii lii xaru douze mille cinq cent. mi jën lii mbocc muy doogu juddu la. xaru chinois la di toggal la. bañ nekkee xale <laughs> dañ naan naan xool dañ naan taxaw ci mbedd yi xoolal di xool papa yi yan xar la ñuy jàllale sa papa bu jàllalee mbote am nga problème wala xaru tàpp yooyu. Tipu sohong le tonye. Waa Papa Mante laay mbote la rey Papa Mante laay mbote la rey. man daal ay mbote yooyu moo ci dul teg. de bon léegi ah. attends allo Issa. nice. nee na non nice. Papa Zil Ndoye. Ibrahima Dieng. vision. aucune vision non nice. non nice. Lamine Gueye dire yëpp xar lañu. mouvement vision <laughs> nee non nice. non non non ils n'ont aucune vision <laughs> pour l'instant amis, ont wala une vision courte Ils ont une vision courte. yor ci bon ak kan non nice. Aminte, non nice. Malal à nee à moitié Asankara, Kara non nice copain c'est Kara. amaguma xar no nice Abdoulaye Diallo ànd doon benn no nice Aziz Notaire no nice waaye yow dëkk moom waaye ñii nag eh, eh, eh, ñii nag buñ buñ yàq der waaye Assane Fall Pompis nee na no nice hmm. El Hadj Badji Manko amoo tefes falaa jëm tey nee nañ no nice ñii nañ mën a ragatoo doon nata neex Mbaye bu Ibnu Diop nice no nice nice no nice no nice waaye yow yow waaye yow man kañ la waa lancé day tailleur non nice waaye yow Lamine Gueye xanaa dëkk ba. galotaal déedéet waaye waaye kooku moom xam nga ne nice lay wax. Dieng bu ASC lakkale non nice. Baba Luka ASC jàmbaar non nice. maman Aïssa la ki non nice pire cent pour cent ëppalaw honnête doom day non nice. waaye yow doo ñëw xool. yow Lamine Gueye mën de gisaguma naaj. la Cissé Touba kan moo naaj. la Cissé de Touba nee na naaj naaj. Ah. Moussa Ndiaye groupe Masala naaj wala non naaj. Fambaye Dia non naaj. madame Mbaye intérieur. simeer mi ngi toj circulation bi kon simeer ñëwal ak xar mi Abo Diagne non naaj publicité ana xar mi mais. ana <laughs> Gasulaay Matar nee na non xanaa boo ko affaire yow de doom boo boo noo naay see ñun moom xalaa terrible noo naay la. jabu Ecobank nee na noo naay waaw yow ñu nekk ci banque yi buñ noo naay see doom ñun ñu ne ci mbedd mi fi Bougane Gueye Dany. ah na fi wax noo naay. noo naay quatre fois. ah. <laughs> Bougane waay waay kii kii bu mu tas suñu yaakaar. pare ne nga ma lan mouvement géejawaay laa bokk ak Bougane PDG des médias ak Fatou Gueye nga nu prene man Ahmed Aidara personnellement non nice kon bu pare ne na yem ci Bougane Kalidou Gueye Gaye nice les douaniers non nice mu waay ah waay waay Ndiaye Ecobank yubi yéegi ñu ngi mu ne mi ngi yubi yéegi léegi non nice waaye yooyu doom yéen ñi ne ci banque yi moom boo leen non nice daam njaay kolobaan doom day non nice den rek fu ñuy xeeñee parfum taxul nga xeeñ parfum de den rek fu ñuy parfum taxul nga xeeñ parfum de liggéey ci banque daa tax a yor xaalis benn wa yée la Cissé Touba nee na damaa juum non nice <laughs> moom rek fi nice woon nag te nee na damaa juum non maa ngi soog a nga xam. ah. eh président Moustapha Cissé nice. i nice kat waaw président Moustapha Cissé Lo Laye Ndiaye Demba tey non nice. président Moustapha Cissé Lo nice. i Cheikh Kanté na nice waay waay xam nga ne nice. Fallou Faye marché Sam Géejawaay no nice kaw Laye Diagne bu faat ay dara honorable député Golf Sud nee na no nice mu waay dina baax jëe grand muñ rek madame Sello na ñëpp def mbote mu nice Souleymane <laughs> Diagne <laughs> Youssou Fall Difoncé no nice Moussa Diallo génération 90 ASC Jubo no nice ak maire Ami Sané déet waay yaay booy no nice Vésia no nice Ahmed no nice Thiam APR Parcelles nee na ñu bokk APR de boo leen no nice see doom ñun xawma fuñ jëm Kankura bi le grand rappeur de Guédiawaye no kilif doom nday ministère non nice waa mais yéen Baba Diaw équipe seen jotaay non nice <laughs> é waay doom bu ma dugal les de la ligne cinquante cinq non nice dëkk bi daal kenn nice nice i <laughs> xoola kii xoola message <laughs> man <laughs> nee na APR Fatick non naay <laughs> woo ay waay li ko wax Fallou Diouf Touba non nice hmm. Mbaar Ndiaye Bambey non nice Aïda Mbodj Bambey non nice déet waaye madame la maire yow nag Mbaar non nice ak kan Mohamed xam sa mbër RDB nice ah yow kay di nice hee jabu Ecobank nee lan même fële sax no nice déet am di sow à Paris no nice xaaral ma arrêté Abdoulaye Daouda Diallo way monsieur le ministre way nice ok d'accord am na ñoo xam ne boo jarul laaj Ahmadou Ba ministre de l'économie ah, nice way Mangara ministre budget way monsieur le ministre way s'il vous plaît derrière derrière way way nice wooy Moustapha Diop microfinance s'il l plaît monsieur ministre le maire de Louga monsieur le ministre wooy nice non nice ah d'accord nice Aminata Mbengue Ndiaye élevage na ah, nice yow kay bu nice ul doo xawma fu nit ñi jëm Pape Moussa Aïssa Diapo Samb no nice Aminata Mbengue ministre xar nice mairie Sam Notaire déet bul wax mukk non nice nag falaa dëkk seen <laughs> taxi su lay seen taxi ma nee na nice les auto école non nice eh waay soxna may pa non nice mu waay mu waay man no nice hee alwalit alwalit cité junqoom xale yi cité ok yaasin ñaa géejawaay ana nga ma xool lan wax moom moom lan la wax no nice jarul la test Zuldoy nee na ma nice mais plus sénégalais maar di taal <laughs> hee Yaya Ba concert APR géejawaay nee good fine nice dajëf waay Pastey ami de Racine Talla naes bu yeboo ngeen yëngu de non naes yee gën a bari fuuf madame Guèye Arfan non naes i Aïssatou Dione sere naes si tu m'offres eh kon de doo naes hmm. non acca acca acca ay ilaha illallah mais yow lii bu nekkoon fat ba léegi noonu naes gi rey na gi yow naes gi matuñu kàddi laa ilaaha illallaah lépp naaj kooku mën soo Diop du ko wax géejawaay rij bi club noo naaj ndax gisuñu la aha dinaa ñëw acca <laughs> sëfëru taxi bi ci turu Ahmed Diaw naa déggal ma naa naaj nee na ah, dañoo fàtte ci biir otom ITC alhamdulilah 11 septembre la woon képp koo xam ne kon fàtte nga sayti si ci taxi wooteel ci 77 651 11 27 gaaw leen ndekki parce que te su tey bi dafa metti ndekki leen ndekki leen ndekki leen ndekki leen ndekki leen Ousmane Mbaye Touba Alaaji Seydi ah tout naes waa kafe ga waa deses ñëpp noo naes doom ak ñin de ak ñin tamit de <laughs> Fatim Laay Diop quatre-vingt-dix la juddu sa carte électeur mi ngi nii Fatim Laay Diop Maxtaar sa carte d'identité mi ngi nii wuy sama ndey courant amul batterie déchargée non nice fa mbay dia <laughs> monsieur Mbaye Diop nee na dafa for benn portable bu ñuul kii moom nice marque Arcatel koo gis da nga woote ci 77 176 83 92 ba Faye non nice ndax dafa réer le permis licence libre carte grise assurance ndengaleer na nga def koo gis da nga woote ci 77 584 37 03 Mamadou Ndiaye nee na dafa réer la benn calpe bu def leen ay pièces permis livré ah koo gis na nga woote ci 77 400 4 double 0 la 74 71 maa ngi mel ni waa ñoo gisee TV5 ata ah oui allez allez-y allez-y allez-y grand lan la ni chez laay la bu ñuul bu takk benn collier bu xonq xajama réer kii de noonu naa quatre fois ah ah way nee na seen maître sacré cœur nee na ku gis xat bi dana la neexal neexal bu raw njëgu xat ma 77 633 44 52 guddin tol nii de doom luy nu rog mala bu réer la ma cay ree sama bopp xar lay ne acca acca kii kan la Parcelles Assainies ah dañ la valise couleur bu verte bu def ay yére ma nga déparé wul Parcelles unité 7 lundi booru heures destination boo ma resee koo gis na nga woote ci 77 863 863 39 message ba yeegul sa numéro bi yeegul naa lire beneen bi 77 676 45 34 kii moom jàppal ne oto bii mu ngi nii caabi oto la <clears throat> waaw bu dee borom mi ngi koy gis dafa réer na ñëw ba fii buñ ma woo ame aminte Ndiaye cekk say nice les étudiants non nice bon léegi ilaha illallah Lim Thiaw Y'en a marre Y'en a marre de xanaa noo nice nga say teg Y'en nice illaa ga jaga o dëkk ab géej nice lu tax laaj Diop bokk ñoom nice yate Marème noo nice noo nice ay dara noo nice Ousmane Mbaye li nga wax sànq day doom hmm. ah Bougane Gueye Dany Binta Diallo bu RFM nee fukki fan rek moo des. Mbadou mi ngi ko yaakaar ci tabaski ba léegi xarab bi def ko. <laughs> Binta Diallo nee ko mu topp ci raami nee ko na topp ci raami. <laughs> xalaat la xaw ma xalaat laa jaay. waa xëy nga sànni nga nee nañ lépp naaj. benn waa ju fa nekk nag moom APR la moom moo ko wax moo kontu Sall. dinaa xool ba xam kële nu mu dinaa xool ba xam euh, ndax ñoom euh, café loolu lañu wax waaw loolu dinaa ko vérifier xool ba xam waa xëy ga yëpp nee nañ naes en tout cas ma ko du sal APR nee na nee na nee na nee na naes loolu moom dañ koy vérifier dégg nga loolu mhm. voilà loolu moom lañ koy lu ñu vérifier lay nekk loolu moom voilà voilà voilà voilà voilà loolu moom lu ñuy vérifier lay nekk moom alaaj simeer premier tës bi de fàtte woon naa sax jooni jooni tës bi dafa metti de moo tax mooy jël kamata waaw waaw waaw waaw ñetti guddi Serigne Touba yi le 18 le 19 ak le 20 septembre 1995 la woon waajtaayu dem nga ca Gabon ajjuma lay door 18 samedi 19 ak dimanche 20 mille quinze ca Sandaga waaw waaw deuxième jour bi nag dana am kon don de sang njéemee fa jaar waaw waaw bon <coughs> léegi kaa ñu ñëw ci. Mbadou wutum xar mi ma tooy kay. parce que ba kay fi nekk nii sa baay kay fi nekk nii Margot Diagne na nice Malick Koungheul nee na nice. tey maye nañu ñaari xar joni joni te tamit day maye benn xar. képp koo xam ne Ibrahima nga tudd <clears throat> bàyyil sa xel ngi ñëw may la benn xar sant bi duma ko waxagum képp ko xam ne Ousmane nga tudd jëlal elan maa ngi ñëw doon jéego nga caaca dégg nga am na tamit koo xam ne may nañ ko leen enveloppe deux cent mille Mohamed Faye amoo kaat kii ñoo bokkoon ñaata deux cent mille francs soixante-quinze cent 23 44 ak ku ñu may 100000 francs Pape Moussa Touré Mbour 78 336 23 53 ki gagné xar dinañ leen woo kenn ki Ibrahima la tudd kenn ki Ousmane <coughs> maa ngi dikk test bu njëkk bi doom. Mhm. je pense que tey moom naa ci lan xiifu. waaw xam nga ni ci laa dëkk jarul laajte xiif gi moom boo xëyee gisoo ma ma sàq mi rek xamal ni maa ngi xiif gi toog. di xaar test bi ah. jeex ma def affaire. <laughs> <laughs> mais nag sumeer sumeer nag suñ doom ji li muy xiif nag vraiment war nañ koo xoolal. Ah, dëkk bi démb ñëpp man du ma ko nëbb de man mais yow loolu feebar la ci yow danga ngaa yori saan wala yow. <laughs> wala yow ma saan wopp ma mais daal damay xiif. man daal sama rab bi fajar lay bañ. Ah, mais yow xanaa yow yow xanaa yow yow kii xanaa ci ay xeer lay faral. <laughs> Ah! xanaa moom te du daf may bës guddi di bës sama biir bi. mbës <laughs> mbësaan xam nga mbës mbësaan mbës mbësaan de boo tëddee mënoo jug loolu lay bës rek tax tëye la ci lal bi nii nga def nii mënoo jug euh. xam naa guddi gi moo may bës di ma def nii affaire ah. sama biir bi di waay mbës mbësaan yéen ñaaray fanaan xanaa ah xam mbës mbësaan kay néeg bu ne lay dugg ana koy fanaanoo man ah. ku may fanaanoo ku dul sama borom kër ah kay waay waay mbës mbësaan kay yow kay li lay xiifloo léegi nga wax ko mën a dugg ci néeg bi di may bës yow kay li lay xiifloo doom léegi nga wax ko parce que man sa xiif koo xam ni yow kay fajal ngay bañ man daal damay xiif may xiif su ma yeewoo batterie day loo wàcc bi bëgg a dee ah, du ma sax man xoole bu baax kii nee na ma bis Dakar dem di ko noonu naay trop serré <laughs> eh, kii nee na ma Africa bul noonu naay waay waay doom liir naa fi léegi deux heures noonu naay waaw waaw TFM no nice Walf no nice Sen TV no nice RTS no nice hmm. waaye nanu dimbali RTV no nice DTV no nice Jupiter heure bii de daan na fekk seen bàyyi jox ma xaru tabaski bu yàgg billahi ñii foog ma tëggal leen trace bu rëy tas bu njëkk bi hôpitalu Caaroy la xewe nee naa leen nag bu yàgg ndekki leen boo leen gisee ma jël sama temps naan nice nice rek bëgg ngeen ndekki ba suur toog déglu ma balaa ngeen am leen metti mm-hmm. dégg nga loolu mm-hmm. kii malaadam la jël ku jigéen mm-hmm. jabaru ni jaayam la jël dugal ci kalandoo yóbbu roi Baudouin jëlee roi Baudouin yóbbu kër sër yi foofu suñu kon kër sër yi ma nekkee xale foofu laa doon fajoo marché saam googu la kër sër yi dañoo aay ci xiiboon waaw kay xëy na damaa xiiboon moom nga ma bëgg a wax waaye yaa ma gën a xiiboon tuuf yow mi fanaanoo suba ngoon guddeeg bëccëg xiib dégg xiiboon gu bon gi mooy yow bokkal boo fi gis rek sër la jaar non c'est que sër yi non non man sër yi non man sër yi li tax non sër yi lu tax man ma yaboon sër yi euh. sama yaay ma saam la doon jaay di euh. sër yi ci biir marché bi daal fa léegi nag nangam sangam rek jaar ci yaay booy rek mu jiital la ne la attaque dox ngay miir <laughs> nga dugg ci hôpital. ba nga ci fonk la ci réew mi fu mu toll nii. séeri nañ leen ba taay. damay de doo doom ci séeri la bokk dégg nga dégg nga doom. waaw. mu dem ñu ko ca yi. Hmm. ba mu jugee ca kër sër yi yi bindal ko kay ne ko demal ca hôpitalu Pikine. Hmm. mu dem ca hôpitalu Pikine. waaye ndaw si de li expliqué. Hmm. ah mooy ne daal yumpaañam boobu dafa ñëw ci buntu hôpital bi kalandoo bi saa sam bi di ko këmax di ko def lu ne jëlal sama malade bi urgence la ne urgence la ne ba yumpaañ bi dee ci biir kalandoo bi lan ci biir kalandoo bi la faatu faatu dee ana ndaw si man daal sama jabaru nijaay moo feebar léegi ma ñëw fekk ko kër ga mu tëdd mu sonn te ma ne sama benn mag bi est ce que yóbbu nañ ñu ne ba démb yóbbu nañ ko roi Baudouin samp ko ay pervision ñaar ma ne leen li tanewul léegi xaaral ma woo sœur bi ndax dinaa ko mun a indi kër sœur mu xool ko li si ta am mu wax ma ma daal di dem woo sœur mu ne ma indi ko ma xool ko ma daal di dem yóbbu ko kër sœur Mancestam ma yóbbu ko sœur bi xool ko ñu xool ma ñu ne ma suukar bi de dafa yéeg de trop léegi mu ne ma xaaral ma bindal euh, kayit nga yóbbu ko urgence kan caaro yi ma ne ko waaw fee hôpital marché Sam lañ ma bindele urgence na ma yóbbu ko hôpital Kancaroy bu Pikine ma dem uti kalandoo ñëw indi ko daal di ñëw dugg yóbbu ko ci premier gisa bi wan ko kayit bi mu ne ma déedéet du fii deuxième ma dugg deuxième porte mu ne ma sage-femme baa ngi ma dugg na sage-femme bi jox ko kayit bi ma ne ko de dama indi fii malaat mu xool mu ne ma kii de du ma mënuma kaa jël fii dafa saal bi dafa xat saal bi fees na man mënuma koo jël ma ne ko soxna si ñawal rek nga xool kii dafa na man ma mënuma kaa yëkkati ma ñëw taxaw fi 45 minutes ma nekk di jaabante di jaabante def naa fi une heure de temps sage-femme bi génnul ma nekk di ko ay soxna si ñëwal malade baa ngi ci biir oto bi boobu malade baa ngi ci biir oto bi waa benn kalandoo laa jël man maa waaw ma jël kalandoo bi ma dugg ne ko soxna ñëwal mu ne ma ya soxna si xanaa doo dégg yóbbu ko CETAO wala nga yóbbu ko foo xam man ak ay soxna si ñëwal xool ko rek dafa sonn mu ne ma oo yow xanaa déggoo li ma laa ah? mu daal may puus ak bunt bi. waaw daal may puus ak bunt bi daal génne woo benn malade ki ñëwoon consultation mu ne ko yee kaay dugg si laa ñëw rek si la sedd xale góor yi gis ma ma nekk du yuuxu xale góor yi ñun ñoo dëkk ñoom tamit dañoo am benn décès dafa génn àdduna te daf si oto bi te dafa nekk en état quatre mois. ñeenti weer dafa ëmb ñeenti weer. kon dafa feebaroon beneen feebar. waaw daf siburu daal dafa man daf maa wax dafa siburu pali moo ko jax ba ma yóbbu ko hôpital waa Bodoy ñu samp koy biteel tanewul ma daal di ñëwaat tanewul ma ne leen xaaral ma woo sœur bi léegi ma woo sœur bi. docteur bi ne ma boo ko mënee indi si oto nga indi ko ma xool si laa ko indi yóbbu ko yóbbu ko si sœur bi sœur bi consulté ko daal may bindal urgence mu ne ma demal kancaaro yi si laa ñëw kancaaro yi dugg ci sasam mu may rejeté ma koy topp ne ko ma koy topp ne ko ñëwal ñëwal ma ne ko soxna si ñëw mu ne ma mu xool kay bi mu ne ma xanaa soxna si déggoo kii mënuma koo jël saal bi dafa kii du ma ko jël ma ne ko. bi ngay ñegsee ak bi muy man def naa si laa la wax une heure de temps. di jaabante di jaabante balaa muy def naa fi une heure de temps balaa muy sedd Aïda Camara sama jabaru nijaay la sama nijaay moo ko takk. léegi yéen euh, euh, bi mu waaw dañoo woo directeur bi waa hôpital génn di wax ak man ne ma léegi dem leen ana koor bi. léegi si la génnee sage-femme bi ba ko xale góor ñii samay dëkkandoo dañoo am décès tamit bu ñu war a xaar pour yóbbu enterré ñoom it ñoom ñu gis ma. ñu xàmmee ma ñu ñëw di ma dimbale si lañ doog a woo sage-femme bi cinquième fois bu mu génne si la ñëw fekk mu dee mu ne ma yow nit ku dee nga may indi ma ne ko kii deewul ba ma koy indi deewul xale góor yëpp seede nañ ñëpp a ngi taxaw. waaw waaw bëgg see set ne ma yi eh, jël leen yóbbu leen yóbbu leen ko yóbbu leen ko. dégg na koor waaw koor bi léegi si laa wut taxi léegi si la euh, seen docteur yi mag yi ñëw ñu wax ak man ne ma léegi dinañ la dencal koor bi ba saa yoo ko buggee enterrer nga ñëw fii jël ko gratuit dinañ la jox ambulance eh. dinañ la defaral lépp yow doo fay dara si hôpital bi eh. ah loolu de lañ ma wax ah loolu de lañ ma wax moo tax ma yóbbu koor bi dama ko doon yóbbu pour roi Baudouin ñu woo ma ne ma indil koor bi waaw ah. ñu ne ma indil koor bi si lañ ma woowaat ne ma indil dama wax ki yóbbu koor bi na ko indi ah négligence da parce que Sénégal amul loi ndax parce que tubaab dafa ne urgence boo indee urgence loo munta yor boo yoroon sa dix malade dangaa war a bàyyi ñooñu ñëpp nga xool ku ñu indi urgence ndax urgence yàlla mun na def jàmm yàlla mun na bañ a def jàmm waaw yàlla rek moo xam koor bi taxi moom si taxi bi ñuy indiwaat nee nañ nee nañ ma indiwaat koor bi man lu ma métti sa sam lu ma dàkkee te maa ko ne damaa yor malade ah borom këram mu ngi France sama nijaay <coughs> Ah. ko wax lii de wax la ca des waaye. Hmm. allahu akbar. ndëpp ndëppal gée fi yàgg te sanction du jub. mais bàyyi rek hôpital ba tam wax nañ xaaral rek. Hmm. doom balaa ñoo commandé. bàyyil ba hôpital bi it wax. ana Daouda daa dikk. maa ngi nii Alaaji. kooku Daouda Gunaas laa bokk. waaw. ana ci loo ne na. sant yàlla naka suba si. ah. ma gi dégg nii rek ñu yeewoo ñu yeewoo fi am tiis soo xam ne daa métti lool. waaw wallaay wallaay wallaay. wallaay métti lool kay. xanaa nga interpellé waat ministre ba rek. métti lool lool lool wallaay wallaay wallaay daanaka boo xoolee même situation bi la rek. métti lool métti lool waay. nga accueil hospitalier bi defoon nañ ci benn ndaje su ma juumulee ca méridien président. Mm-hmm. Euh, ndaw si daal après nañu déglu waa hôpital bi tam wax. waaw kay. Hmm. xam nga kenn rek wax dañoo war a bàyyi tam keneen ki tamit. wax lay pàq la dëgg la. waaw waaye daal loo ci mën a jàpp daal. Hmm. mooy ni ñuy dalalee nit ñi daal ci l'hôpital yi. Mhm. Hmm. Euh, war nañ ko. war nañ ko xoolaate ah. waaw waaw waaw waaw waaw waaw. wallaay wallaay wallaay. xanaa hmm. xamoo alaaji am na nooy dalalee malade rek. Euh, euh, saafara nga feebaram. billaahi wallaahi tallaahi. waaw. ngay dal da ngay xam ne kii sax. wallaay maanaam sori na. ñu nga dalal xelam. Mhm. wallaahi ne ko non yow kaay am nañ ko fi ba tey. wallaahi wallaahi ko ba tey mais lii lii lii xam naa da ngaa rek. fekk mhm. yow leer na la ni kii fi nekk nii li muy dund moom rek yow leer na la sax kii mi ngi ci danger. Mhm. waaw mii ngay dalal xelam ndeysaan ba mu di waxtaan. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. waaye. <laughs> Hmm? Ah? daal en tout cas daal. yow daal xaaral doom nee naa la balaa ngaa commenté di déggalal sa baay noppil. Ah, ah, ah. noppil. man day mën doom ji doom ji day histoire doom joo xamante ni nii. sa baay nee na nga noppi. daal daa métti de. nee naa noppil ba ba dégg waa lopitaan ba wax ba noppi. du noonu. <laughs> dëgg la. ah. Alazi, kama eki, eh, eh, jeme Worel Abdullay Nyami e ke ite mnena, jimons eh, le de lon be na taksi, jeme eko kambere, jeme eko feng, hamde mwen sito apeksi, le te bayanak ay chabi krem, ak lenen ke walouk chabi kon chabi nege mwa, ak ay papye m, ak yenen e yinbir, kon taksi li kou gite nan kou chesan de 7, 533, 61, 92, 8. Diyan. Diyan. E, Soumet. waa hôpital ba ca boppam Robert la de ah. wax na Ndiaye Robert Ndiaye la yaakaar naa di kii nag Robert Ndiaye la bind. moom tamit wax na nag ñoom ñooy waa hôpital ba. ginnaaw ba kii xam leen ne daal ndaw si ci biir kalandoo bi la faatu ndax tàggante. Mhm. ñoom nag loolu dañ ko weddi. wax nañu daal ñu ngi nii. waaw ñun de ñu ngi metti lu ko nga xam ne dafa ñëw hôpital. di faju yàlla def bekk na ma ko foofu. loolu vraiment dañu koy mettitlu parce que suñu sañoon ku dugg hôpital sooy génn dangay ngay yóbbaale wér-gu-yaram nga ñibbi war sa kër mais li nga xam ne moo fi xew ci suba jàpp naa ne du ñàkk farlu ci malade parce que ku xam l'hôpital de Pikine xam ne ñàkkuñu farlu ci malade donc ce qui s'est passé c'est que malade bii nga xam ne moom la ñu indi biir hôpital bi loolu gynécologue yi attesté nañ ne du ñàkk farlu dal ñu jàpp ne malade bi dafa ñëw arrivé décédé la ñoom confirmé nañ ko attesté nañ ko beneen bi nga xam ne loolu keneen attesté na ko mooy chauffeur bi nga xam ne moo koy indi xam nañ chauffeur bi jàpp nañ turam wax nañu dégg waxaat nañu dégg te nee ne malade bi nga xam ne moom la yeboon di ko indi dafa décédé avant en cours de route mu bañ a alerte jigéen bi di ko doon yóbbu moo tax mu bàyyi ko mu dugg moom ci boppam bi ñuy defar certificat bi nga xam ne moom la ñuy constaté arrivé décédé bi moo ko wax te nee na mën na ko wax fu ne pourtant euh, ki ko ki ko indi nee na moom leer na ko ni bi muy bàyyi ko jigéen ki ci oto bi mu ngi yëg bakkanam mais dafa dem station bi di ko di ko jaay ñàkk kersa ñu tere ne lu toll une heure de temps bu mu tourné la ko fekk mu gaañ non de toute façon xam nga gérer ay urgence dafa dafa jafe ñun ñëpp dégg nañ li xew ci fii ak feneen ci wàllu gestion des urgences defe naa ne problème la boo xam ne bii euh, dafa concerner tey tous les hôpitaux tous les structures du Sénégal. hôpital nag dafa am malchance ñi gën a sonn ñi nga xam ne dañu dem ba bëgg sukuraat hôpital la ñu jëm. et souvent boo ñëwee dans un service d'urgence il y a un minimum de patience boo xam ne bi da ngay fekk ñu nekk ci malade bu bu sonn duñ ko mën a bàyyi ñëw jël temps boobu la nga dañuy wax ne négligence dafay am moi je pense pas que négligence dañ ko mën a wax négligence dafa fekk na maladies yi ñëw ci urgence ñoo bari ba nga ne ci kenn tu obligé des fois da ngay indi pour ndax na xaar salle d'accouchement bu ñu place directement du jaar gynéco obstétrique parce que dañu leen di leen on les met directement à la salle d'accouchement place donc moi je pense que du question négligence c'est juste des questions de temps te délai de prise en charge bi. ñoom nee après bi ngeen leen libéré. Mhm. ñu dem. Mhm. gannaaw bi soxna si ñàkkee bakkanam da ngeen leen wax ne na dem daal ak euh, malaatam fu mu xam. Mhm. mais bu mu demee ba si yoon bi coow li bu mu jibee après dañ ko woo. nekk retour na léegi koor bi mu mel ni daal da ngeen ko doon jéem a neexal pour mu bañ a wax. non du neexal sax mais quand bu ñu fàtte ne dañu nekk ci hôpital. Euh, te hôpital ñi fay ñëw ñëpp dafa nekk lu sensible. bekkanu nit la ak bekkan ku faatoo ku faatuwul bekkan bekkan rek la quoi nit nit rek la je pense que booba bi ñuy waxtaan femme bi booba génn na dem ñi nekkoon ci biir salle bi di wax ak ñun ñooñu sax jox cette information ne femme bi dem na mais nag yaakaar naa ne du duñu koo xam ne que dañ koy denc tey jii déedéet parce que soo mari est chrétien ñu ne leen bu fekkee soo mari est chrétien c'est sûr que dinañ ko denc ah l'hôpital est open ouvert maanaam ñun may nañ leen du question dara nag mais dañ koy defal ñëpp may nañ leen ngeen indi ko ngeen denc ko fii. alors que jàppoon ne loolu da ngeen a bëggoon nëpp nëppal ah, non non du nëpp nëpp parce que tamit euh, booy nëpp nëpp dafa fekk nga def mais hôpital deful quand même mais ñun ñëpp xam nañ ne urgence ku fa ñëw di nga xaar yow boo ñëwul urgence da ngay xaar man damay dem urgence damay xaar médecins yi dañuy ñëw urgence xaar c'est des médecins kii quittent Dakar pour venir se soigner à Pékin, des autorités. Mais vous n'avez service déjà. Il faut y avoir un minimum d'attente. Mais nous parrainons pour les parrainons pour les lol sax dafay gën a leeral je pense que lol tamit ci xam naa da nga ko tudd rek mais dañuy wax ministère de la santé sax doit ko recommandé mooy maanaam bépp décès bu am hôpital ci biir hôpital surtout nag muy jigéen de xam de dafa dafa ëmb kooku nañu def audit des décès pour ñu xam lan moo ko faat lan moo ko rey décrire la procédure xool yi limiter ñu wax responsable yi fan la nekk bu fekkee hôpital moo moom moom moom moo def loolu il faut sanctionner l'hôpital loolu moom ñun dañ cee d'accord te dañ ko doon def ñun amuñu luñ ciy ragal dara amuñu dara luñ ciy ragal parce que ñun wóor nañu en âme et conscience soxna si bi mu fiy dugg dafa ñëw gaañ mais rapport kii bi ndax bi affecté ne waaw rapport bi du rapport sax constat la boo xam ne bi médecin bi décès bi fii la amee il faut mu bind ne constaté nañ ne malade bi dafa décès bi arrivé daal di ci cachet daal di ko signé maintenant ba muy rapport di am nag li ñuy wax mooy rapport d'audit audité décès bi depuis très longtemps depuis nag booy audité tamit da ngay remonté ndax ndaw si dafa am ay antécédents maanaam dafa amoon ay feebar yu nekkoon ci moom gannaaw bi mu ëmbee ensuite jaar na ci yenn structures yi parce que démb ba tey mu ngi dem ci ay structures di faju ba ni mu mujjee ci kër kër sœurs yi kër sœurs yi ñoo ko évacué fii donc tamit ñun aussi suñu bëggee lu gën a lu gën a am maanaa dañuy wax ne ni ñuy référé malade ci hôpital te nga jóge ci hôpital ñu war la nañ leen di teg ci ay conditions yu baax ak assistance pour indi ci hôpital ah ñun nag ñoo waroon maye suñuy xar rek ubbi antenn wi nit ñi tey voilà concert bi nee na ma lii dafa daa yomb il faut ñu ubbi ci lànk ah, baax na voilà baax na. même bu décédé ci oto bi kay sa sam bi. dafa waroon ñëw constaté foofu décédé waru fa am une heure de temps. xool ne ko xaaral ñu une heure de temps ci mbedd. ak tàngaay bi ak hôpital kañ lañ commencé maye morgue barki fi néew boo xam ne dañu leen sept mille ngeen di fay par jour war nañu hôpital yëpp. waaw léegi ñu euh, subitement ñu di maye morgue di ko may benn nit yaa angi sous roche. Ah. am na lu ca lëndëm daal. Ah, am na lu ca lëndëm. ah am na keneen ku ma yónnee message ne ma dund loolu de. ci même hôpital waaw baax na. en tout cas daal. sanction dong moo koy dindi li ma la wax kañ moom. hôpital yi su saaf-saaf yi waxuñ ñëpp nag. li may wax Mansour ni ko buñ waxee saaf-saaf rek noppi day mel ni ñëpp la. waaw am na ñoo xam ne dinañ la gàttandoo. ah dinañ la dinañ la dinañ la teetee. dinañ la neexal. teg la ci kaw. ba loo doo yëgati sax sa ëmb. merci beaucoup. ba yow par contre noonu la amee ñoo xam ni këmax lañ lay def te naan la ñu koy def daa neex yéegal nii toog sa kaw dënn bi bës di la këmax jox naa la fi exemple madame Thiané waaw dafa dem retraite mais nit ñi dañuy ñëw sax di ko laajte di jooy parce que ni mu mel ak ay patiente la daf leen au poste de santé unité 9 la nekkoon dem na retraite nit ñi ba tey dañuy bëgg moom mu ñëwaat parce que ni mu mel la gis nga poste de santé bi dafa ndaw de mais alaaji boo demul 9 heures rang ba 13 heures 14 heures nga fay jógee parcelle ñëppay bab bi dem ci moom ndax yërmande gi mu am xol gi mu am ak xam sage femme noonu lay mel waaw mais dama ne ku feebar sax ku feebar ku feebar dama ne même dul xoolal man dama ne ëmb ni mu mel ëmb nu mu mel nga xam ne dañ naan la benn tànk banque biir pax mi benn banque biti ñu naan la taril tuddal yàlla nangam sangam mais lu mel noonu noo koy tiimee ba pare te yow moomu ci boppam sax yow da ngay wasit da ngay ëmb di jur man dama dafa mel ni ñoom xam nga li dañuy fàtte métitug que ñoom bu ñuy matu ñoom seeni i yooyu seen collègues yooyu ah nan la yow yow yow ah yow loolu koor yëpp la voilà ah, na daal vraiment daal boo bëggee dégg dëgg mais loo xam ne yow ministère dem na ba def constat bi ba seetlu ne lii fléau la jàngoro la feebar la ba mu organiser ci benn séminaire ci benn hôtel fii ci Dakar ak ay hospitalier gàttandu gi nga xamante ni ñu ngi koy gàttandu ñu feebar ci hôpital yi nañ leen ko xoolaat. Eh, baax na. mais yow kay. ndey ñu andi fi tëskaa yi. te loolu mën nañu continuer ministère di déglu tës di ko dégg chaque jour te duñ nag dem ci euh, hôpitaux yi def ay. enquête xool sage-femme yi mu concerne ñan la xalidu nee na. lan moo tax ba sage-femme bi génnul ba tey. waaw bàyyi ba mu dee mu ne ko néew nga ma andi. ak wax ju ñàkk kersu koo xam ne nit mi ngi doog a deele nga koy wax wax jooju. ah wax dafa neexule de boo waxee ñu ne da nga far ñii wala da far ñii mais kenn farul kenn dëgg ji la ñuy àtte. Hmm. dëgg ji mooy foog sage-femme yi di jox cër bu baax ñi nga xam ne dañoo am métit di ñëw am na sage-femme bu ma bind léegi ne ma ñoom malade yi ni leen di traité la mais malade bu nekk ci métit da nga ko mën a jugé xam nga kañ ngay wax li ma def bés bu accouché ba pare. bu accouché nag ba jotaat bakkanam nekk ci jàmm bu la traité de tous les noms am nga droit sax dóor ko foofu waaye mi ngi ci métitam lu mu la wax muñal xam ne métit moo ko jàpp waaw non ni sax et puis mais ñoom dañuy ak ñi am ma ne la yow si biiru gii rek nga xam ne nii gars yi dañ koo xaw a xeeb sax laa lay wax nii am na ci ñoo xamante ni nii bu ñu si biiroo dañuy waxtu ñu <laughs> tame ndëm amé tama jàpp mantulaay mii laa gis démb si guddi waaw da ngay dégg rek waaw waxoon du ma la ak yow koo xamante ni nii gars yi yow yaa ngi nit ne ci yow li tekki noppam a ne ci yow. nga war a joxe bakkan dans quelques minutes. waaw ñu ne la ate na génn. ah na génn ba nañ la koy waxee nag na la ko na la na la ump. Hmm. bu la ay femme témoigné loon fii léegi nii liñ dund seen jour accouchement danga naan nit wala moroom jigéen mënul wax moroomu jigéenam baat yi. danga naan jigéen mënul a wax moroomu jigéen baatam yi baat yu ñaaw yi. te dañ koy wax dañ la koy wax. tiim la. dañ lay tiim di la ko wax. defal nii yow booy def nii nii ngay def am na baat yoo xam ne rus naa ko wax fii sax ma la lay wax. ba nga doon def nangam ndax nii nga doon def. déedéet wala naan naan melal ni kuy dem dus nga def nga la ah booy dem dus seen kër nii nga yuuxoo. wala lii rek. yooyu dañ la lii exemple la rek de ci ay tas de exemple yoo xam noon lañ la koy waxee. baax na sànq nag sànq nag ministère sanctionné wul yii di am dem def enquête ci hôpitaux yi day continuer day continuer rek. Ah. mais da seetaan émission. Euh, tubaab yi chaque jour dañ naan ñu suñu exemple de mais ci accueil yooyu exemple lañ mais bu ñëwee di accoucher niñ leen di accueillir niñ leen di toppatoo ba seen i jëkkër dañuy dugg ci salle bi yow gis nga da ngay ci jàmm ak salaam foo ak ree bay macha allah du bari yenn dese yi nga xam ne day am mais fii Sénégal di nga mën a kii parce que booy accoucher sa tension bi nekk sans sam benn xarit nee na ma boo bëggee dégg dëgg du métier métier docteur du suñ bopp allo waaw waaw waaw donc waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ah. waaw waaw waaw xaaral waaw ah waaw xaaral ba ma tëj instant xaw mënu ma def émission di wax téléphone wala kii nee na mënatul eggale émission bi xamee ci de hmm, en tout cas dafa metti na daal ah na waar de mu taxaw jigéen ñi xam ni hmm. booy matu métit moo lay jàpp kéemtaan la kéemtaan la ñun jàppale jigéen ñi du ñëpp yem nag am na ci ñu baax hmm. waaye benn commentaire bu nëpp rek day yàq saako acca acca acca doom xaaral ma maye xar dégg nga bu ko defee ñu yeggali allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def waay. maa ngi rek. kooku Ibrahima Seye. sa rajo. allo. Euh, mani. waaw. yow tur bi la. Alassane Ba. waaw. ci loo ngi fi rek. Euh, alhamdulilah. ah serveur bi waaw ba foo dëkk. man maa ngi dëkk Bentali. Ah? ah. Bentali. ah euh. Bentali. waa test nag moom ak Zik FM may nañ la xaru alhamdulilah. dégg nga. waaw. voilà d' accord merci beaucoup dégg nga. waaw merci waay. jaajëf waay. jaajëf. ah aywa. too ko def acca ah, kon jàppal ni Subair nag may nañ ko ah. yéen a nga jox ko numéro Ah, xaaral yónnee la ko léegi ah fooga ne mbër mi yónnee na la ko sax tës bi daal xamal naa la benn affaire <laughs> metti daal moom def na ko moom moom metti na hmm? bi daal xamal naa la benn affaire metti daal def na ko lan dawal moom daal moom métti loolu moom. lii. métti hmm? na. su bi daal xam naa ne métti na. ñoo ñàkk rek. ñoo ñàkk ñaar ñoo ñàkk ñaar yaay ja doom ja. yónnee naa la ko aywa. aywa aywa aywa aywa mayel ñaari xar gaaw ñu daal di yëkkati nag. Euh, hmm. nee na petite sœur am tamit noonu la décédé rek càggante oustaz Fall. Hmm. bi xam. gis nga gis nga kii nee na ma madame Seck Nabil Soukair nee na exemple la ci saaf-saaf nee démb mook jabaram ñoo fa dem mais nice nice nice nice nii la rek. Mhm. madame Seck bu bonoon. nii lañ ko fi waxee ah, waaw waaw. moom koy déggoo la foo dem am na ñu baax am nañu bon. li ci xol yi dong ngay fësal sa métier. même ñun métier bi ñu def journalisme suñu xol yi bu bonee chaque jour dañuy bëgg di fayantu nit ñi rek. Mm-hmm. di leen loo xam ne du dëgg. fépp la am. waaw ah, waaw sa xol doo ko génne fi ngay liggéeyee da ngay teg xol fële. dëgg la xar gaaw mayal xar. xol bi sax neexatul. moom kay moom. Ah? man kay moom. aywa aywa aywa ci saasi. fiib bi disparaître na ci saasi. xoolal rek daal bii.